asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ñoo fas yéene fàttali konte rek ak laabirante lu jëm ci wàllu muurum koor dafa doon loo xam ne jullit bu nekk rek lépp loo xam ne war na ko da war a xam surtout lu jëm ci mbiru jaamu yàllam mbiru diineem léegi nag muurum koor doon loo xam ni jullit ñi léeg-léeg ñu laaj ak di ci am ay lënt ak di ci joom ñu ko leral mu dum koor nak buñ la laajoon atté bi da nga nan farata la eh, manam mbir la mo xamni dafa war julit bi doon digalal yalla sallallahu Alaihi Wasallam jot liñu ko kon atte bi farata la dafa farata moy lo xam boko boo day da nga am tuyaba ju bari ngir nga waaye boo ko bañee def ci sa coobare bopp rek nga xam ne amoo ngànt tabarkàlla da nga ca am bàkkaar bu rëy njariñam yi nag yaatu na lool ndax li ñuy wax rek euh, ni ko Nabi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne tuxratan li saa'imi minal laxwi wa rafas muurum koor dafay laabal koor gi xëy na ba ngay woor nen la ko digale ma ne woo ko ni xëy na ba dana ay njuumte yow ca doon def ci wàllum waroon ko gën a sellal ca sellal ka des xëy na boo wooree ba koor gi jeex nga joxe muurum koor rafetal njort ci ne kon koor gi daal mel na ni woor nga kon na mu waree maanaam laabal na ko jubbanti na ko waye tamit amna yenen yeneen lu melni dimbalante bi nga ya, xam daf ci am ci diggante ñi nga xane yoré yore nañ ak ñi nga xane sen seen loxo jotul seen ginnaaw ngir ni bis bobu bisu fet la bisu korité ngir kenn ku ci nek rek am ci tawfiixu fet ko ba yegg bu baax baax na li ak fet la kon njariñ yi eh, yaatu na way ñu teunk ci loolu leneen li nak moy njariñ nga xamne rek moy jëfëndigalal yalla nga xamne ay tuyaabam suñu borom rek mo xamna mu toll kan la war murum koor man na ñepp la war képp ko xamni dal be murum muurum koor di war fekk na la nga euh la nga man ko rek man nañ ñu war na la euh, bokku ak li nga xam dañ ci ta mo nekk muskàlla fu ngi mel nonu xale bu euh, xale bi gëna a nekk xale sax murum koor war na ko ay wajuram war nañ ko ko gennel ay wajuram war nañ ko ko gennel kon loolu ci mata leeral la waajur bu nekk war nga koo génneel sa bopp war nga koo génneel sa njaboot muy sa soxna war nga koo génneel say doom tamit war nga leen koo génneel fekk ñu nekk muskàllaf wala bu dee jigéen bu sëyee nag léegi wàcc na la borom këram lay war léegi waaye bu fekkee say doom yi doom yi jigéen yi sa kër sëyeeguñ tabarkàlla muurum koor yaa leen ko war a génnewaaleel say doom yi góor tamit yaa leen ko war a génnewaaleel bu fekkee rek du nañ ba nekk muskàllaf nag surtout bu ñu mënalee seen bopp tabarkàlla léegi ñoom la war ñoo koy génne seen bopp bu la neexee na nga leen ko waajur tamit bu fekkee moom waajur wi loxo loxoom jotul gannaawam te ay doomam woomal tamit xëy na mën nañ ko tabarkàlla dañ koy dañ ko koy génneel moom waajur wi muurum koor nag képp koo xam ni bisu korite bi am nga ca loo nduggee loo xam ne moom nga waajal xëy na danga ca mën a korite korite gu jaar yoon. lepp lo xamne defé nga ko rek lolo murum koor war na ca kon murum koor naka génne ki yaatu na ba daanaka tabarkàlla bu ñepp génnee rek ñi nga xamne yoru ñu yaakaar naa ñoom it am luñu fétu ndax dafa yaatu lool boko eh, eh, yi nga xamne dañ na la da ngay am nisab bi zakatul fitur bii moom boo amee loo koree rek tabarkàlla lu ca dolé ko rek murum koor war na la ta murum koor nak du la wacc ben yoon heure fu la waré ci defoko ngir doono toujours rek ya nga bor booba ci sa ndodd fee génnewoo ko rek du la wàcc kon nag képp koo xam ne sàgganoon nga mën koo génne ca génnewoo ko bay boo nga calculer la nga génne wul woon yëpp nga génne ko mu lay door a wàcc nan la war a toll moom muurum koor muurum koor de ni mu war a toll rek ñu koy natt ci saa saa nag euh, niñ ko borom xam-xam xami xayma mooy euh, ñeenti mudd ñeenti mudd euh, bu dee ci ni ñu koy peesee nag ci wàllum euh, sunu jamono jii nag li borom xam-xam yi gën a dëppoo ca muy li gën a wér te xam ne boo ko génnee moom mën ngaa jàpp ne génn nga muurum koor mooy ñaari kilo ak xaaj am na ñu ne ñaari kilo yu manqué tuuti am na ñu ne ñaari yu ëpp tuuti waaye ñaari kilo xaaj daal moom wër na ne ku ko mën a génne moom la mën ngaa refa jot ci ni génn nga muurum koor lu tax ñuy tudd ay kilo nag mooy mburum lañ ca taamu mooy boo koy génn nga génne ko ca la nga xam ni moom la waa dëkk ba di gën a dunde te buñ xoolee lu mel ne Sénégal mel na ne ceeb la ñuy gën a kon kuy génne mburum nga génne ko ca moom mooy li gën anda na borom xam-xam yi def ijtihaad nag ne mën nañ koo génnee ci alal bu boobaa da ngay xool la nga waroon a génne ci ceeb nan la toll ci alal nga génne ko waaye nag loolu moom la gën mooy nga génnee ko ne ko yónni sallallahu alayhi wa sallam waxoon sunnaam sa mooy maanaam nga génne ko ci lu ëpp la ñuy dunde lu bu dee lu mel ne Sénégal nag nga génne ko ci ceeb moom mooy li gën bu fekkee mën nga ko caa génne kañ lañ ko war a génne foofu tamit ba nga xam-xam yi am nañ ci ak wuute am na ñu wax ni bu jant bi soowee rek maanaam war na maanaam jant bi nga xam ne jant bi nga ne maanaam bu ñëwee suba la korite bu jant bi soowee da nga xam ne seelu nañ weeru ne suba la korite maanaam booba lay war. am na ñoo xamante ne si tamit dañ ne gannaaw jullik fajar lay war maanaam bu ñu suba la korite maanaam ci eh, gannaaw jullik fajar gi noonu ba après ba ba ci julli gi diggante boobu ba ci jullik iid gi diggante boobu am na ñu ni moo war kon diggante boobu la ñu gën a taamu waaye tamit eh, borom xam-xam yi maye nañ sax lu gën a yaatu ba ci ngir imaam Malik maye na sax ñaari fan lu ko jiitu yoo xam ne eh, ñaari fan avant ñuy julli tabarkàlla maye nañ ko. ñuy génne ñu man caa génne muurum koor lu mel ni ngir imaam Malik surtout bu fekkee nag nañ koy jox tabaarkàlla dafa doon ñoo ni ñoom dañ koy joxewaat di ko séddale xëy nag mu teel a yegg ci ñoom dana tax ñu mën koo yaatal wala bis ba ak yu mel noonu kon loolu tamit ñu bàyyi ko ci xel kon muurum koor gi noonu daanaka la ci mat a tënk tënk nañ ko ci ñu bàyyi ko xel te xam ne farata la joxe gi nga koy joxe dana laabal koor gi dana ko jubbanti te tuyaaba ja yaatu na lool ngir ndigal suñu borom tabaaraka taala xam ne jëfe nga ko waaye nag ki nga xam ne mënu ko teguñu ko ki nga xam ne amul sax lu mu ko ree tabarkàlla koor gu mucc ayib kooku moom da koo yeyoo moom teguñu ko kon kiñ ko tegale mooy ki nga xam ne mën na ko waaye képp koo xam ne mën nga ko nag tabarkàlla nga génne ko mooy lañ la digal kon loolu rek lañ doon tënk ci lu jëm ci mburum koor wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. وما